deuxièmement nga ne ndax dama waroo ak président ci troisième mandat et cetera loolu aussi ma bëgg a leeral xanaa bala ngaa waroog nit ci xalaat xam xalaatam am de kan moo ma mën a wax fii lan la président di def dëgër ngeen fit de man de xaw moom te maag moom tous les jours ñu toog xaw ma dina nekk candidat xaw ma du nekk candidat xaw ma lu nekk ci xelam waaw mooy li ma leen wax keroog bala ngaa toj gémmiñu sàmm nga xam li mu wëliis wëliisagul man maay wëliis fi mu ne man moom wëliis la mais moom wëliisagul ngeen toj gémmiñam ça n'a aucun sens c'est c'est s'exposer un risque considérable Moi, je ne sais pas.